si bile bu fees dell ànd ak xumbaay ak mbumbaay la coalition Diomaye président daal di présenté programme candidat nekk ak programme bi nga xamante ne dañ ko daal di tënk ci juróomi ars bi ci njëkk di réformer institution yi ci réew mi. président de la république dinañ wàññi dooleem Sénégal parce que président de la république Sénégal moo raw buur dafa am doole. dinañ ko man di topp plus facilement parce que tey jii pour topp président de la république haute trahison rek nga ko mën a toppee. dinañ réformer également li ñuy wax sunu justice yoon parce que yoon fu mu amul rek dëgg fu mu amul rek jàmm mënu faa am. buñ ko falee jiitu réew moom ba Bassirou Diomaye Faye mu fas yéene rek saafara jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw yi ñu ngi koy jànkonteel si wàllub liggéey. dinañ ci def ay jéego yu mag. am na ay réformes yoo xam ne dinañ ko mënee waaye dina am ay instruments yoo xam ne dinañ ko teg en place ay programmes yoo xam ne dinañ ko teg en place pour yombalal ndaw euh, liggéey ndaw ñi. bu ñu faluwee ñu fas yéene itam saafara dund gu cher bi ñu nemmeeku ci réew mi te nag ñu fas yéene ko jaaxee ci sukkali mbay mi. li ñu war a mën a def pour développer agriculture Sénégal. dinañ ko def mooy maîtriser ressource en eau cest à diir ndox mais du yem ci ndox parce que dinañ jéem a dekkal suuf si avec ay programme de fertilisation mais li ci ëpp doole mooy également dañuy dekkalaat li ñuy wax le potentiel semencier du Sénégal. ay fan yu néew des ñu amal élection présidentielle yi jamono ji nag coalition bu Diomaye président ànd ak confiance bu rëy daal di sax. dem bay déclaré victoire am ci guddib ñaari fukki fan ak ñent ci weeru mars atum La première priorité c'est de dégager ce régime moribond. Sans le peuple, on n'aurait pas cette victoire. Nous avons déjà gagné.